lan ngeen gisoon ay thermoflash yo xam ay 80 000 lay jar soixante te thermoflash pour la la température ñaata ñoo jaar aéroport ñu flashé len te téréwul développé nañ maladie bi parce que du la renseigné ci lenen te nit mën na dugg sax ci four genn tang jigéen sax ngeen bal ma ci wax ji bu gis réglam sax amna niveau boo xam ne ovulation bu fa nekkee yaramam day tang, ça ne renseigne absolument à rien du tout mais il fallait que ña nek ci kaw créer des conditions au marché C'est ce que je lan ce fi détresse respiratoire c'est vrai Nous avons 2 milliards au moment où il n'y avait pas de masque il n'y avait pas de visière Nous avons développé 2 milliards pour les respirateurs C'est gis ngeen à Thiès ah, sénégalais ne mën nañu defar lii ñuy outil à l'extérieur est-ce que vous avez kenn ku ci wax pour continuer donc système bi wax naa ko conseil présidentiel pour le 9 devant le président ma ne ko monsieur le président 2012 bi ñu ñëwee au Sénégal bi ngay doog en tant que président de la République budget bi fait, 120 milliards En 2019 budget bi yokku 200 milliards ça veut dire que 80 milliards yokku na ci monsieur le président lolu ci yok ban impact la am ci indicateur sanitaire yi ñun gisuñu lolu may wax ji donc alal ñu koy dugalaat te même erreur bobu lañuy défarat kéro keroog démé conseil présidentiel ba wax président dañ ko wax ni baax na gaañ jox xaalis mais xaalis bi il faut ñu xol fi ñu koy dugal et le président même a reconnu cela bi ñu toogee ñu waxtaan lolu président ne légui waxtaan leen yéen ñëpp te ñëpp bokk bu ci ñëpp bokkee ngeen proposé ma loo xam ni fii ak juróomi at yi dinaa ko def ci santé te aw ma limite c'est le mot qu'il a utilisé lu ngeen ma laaj même bu nekkul fii dinaa ko uti mais na ngeen ma fexeel rek defal ma loo xam ne système bi dootoo ci déggati benn problème lépp day dox ñun ñu réunir suñu biir bind benn document boo xam ne dix pages la boo xam ni amul sax xaalis bu bëri buñ ciy dépensé mais ñoom parce que dafa am une vision bu nous amoon vision mooy lan moy comme amna ay soixantaine de milliards ay 100 milliards il faut que ñu jënd ay matériels sophistiqués def ay marché ñu né dañuy ériger neuf établissements publics de santé moy hôpitaux yu nek fi du niveau 3 ñu né dañ koy ériger en hôpital de niveau 4 xam nga day am charge mais yow ku sa sër matul est-ce que di nga booti gàmb yow hôpitaux de niveau 3 yi de doxu ci que do leen améliorer ba nek niveau 3 nga bëgg jël ci 11 yi 9 yi nga def leen parce que da fay laaj ay équipement fay laaj ay milliards yu ñuy jënd pour mën ko teg loolu nek da fay nek ay problème ñu gis ni aussi bi leen waxé loolu protéger wun personnel bi te tey jii na presque ay ñetti téméru agent yo xam ñi ngi tëdd parce que mbass mo leen teul te bu ñu continuer ni musiba dina dal parce que li nuy gis doyna war waar doy waar boo xam parce que bo nekké nga ni légui nit ñi ku feebar na tok sa kër ku taxol na feew sa kër ndegam ka contact yi nga xamni sax commencé wu noonu wàll lan doon isolé parce que nit ki bu amé euh, bu xamé statut sérologique am dina jël ay disposition mais bo né duma testé ku dul ku feebar ki am statut sérologique xamuko day safonté nit ñi et méthode bi ñu def méthode bi moo gën a garaaw moo gën a da non billaahi wallaahi taalaay bu leen wóolati kenn nag nekk laa wax nag a commencé par moi-même suñu loxo sa kaw 2012 ba tey à part ñooñu ma leen wax ñu mu yokkal nan la wax benn agent de sante boo xam ne un franc yokku na ci salaire am amul 2012 bi mu fi ñëwee ba tey amul un franc laa la wax bu yokk ci salaire benn agent mais mënoo ñëw yokkoo sa salaire di la exposer joxu la ay moyen

Il y a un conflit entre le cabinet ak ñom mais ci yoy la ci yoy la ñun am ci ay information est-ce que ay politiciens dinañ sacrifier toute notre vie suñu papa ak suñu yaay gëmloo ñu bu ngeen bëggee tekki da ngeen di jàng bu ngeen bëggee tekki du ngeen am raccourci da ngeen di ñun ñëpp ñu ba diplôme di sacrifier ñu ci bëri àll ba leen servi servir dans ce pour ce pays là pendant plus de vingt ans ay ñoo xam ne leen rek la am mooy seen lamine bu ñuy wax wala dañuy politique ñëw jël en otage notre système de santé di ci def lu leen neex non dafa doy dafa doy ça ne peut plus continuer mënatul continuer il faut que ñu arrêtions.

motax tax ñu delluwaat ñun ci lu nekkoon loolu mooy vérité la vérité. mooy dinañ organiser une marche nationale le 4 ñetteel bi moo dinañ am grève générale le 4 et le 5 août marche bi le 4 août la beneen bi rétention d'information bi ñuy def à partir du 31 août 2020